ginnaaw ba ñu ñëwee fii ci CNG waxtaan ba doon amal ci diggante waa CNG ak promoteur yi ñu taxaw ak kenn ci promoteur yi di Fallou njaay ñu laaj ko fan la waxtaan bi mujj sëñ Fallou maa ngi lay nuyu waaw Ndeye Mbacke ñu ngi lay fay bu baax di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Leewtoo TV yëpp di am mbégte tey ci racontre bi ñu doon rencontre CNG tey yaakaar naa du woon promoteur yi kese monde de la lutte ñoo waroon daje ak CNG pour ñu waxtaan boo xoolee président yi ne ci làmb yëpp ñu ngi fi ñi doon wax ci ñaari abse abse yoo xam ne nii yu am solo la ñaari benn bi mooy nan la ñuy def ba nit ñi mën a ñàkku beneen bi mooy nan la ñuy def pour ubbi làmb ji bi ci gën a nag mooy nan la ñuy def pour nit ñi ñàkku nan la ñuy def pour nit ñi làmb ji ndax ñaari abs euh, ñaari obse yu am solo la tey làmb toll na foo xamante ne nii jàpp nañ ne war nañ ko mën a organiser ci ay pexe ñu doon xool yan pexe lañ ko organiser ah ñoom bi ñëwee li ñu proposé mooy nañ fexe euh, mercredi bi di ñëw ñu sensibiliser nit ñi famille làmb yëpp ñëw pour ñàkku bu ñàkkoo pare ah dinañ woon autorité yi neen kat ñun pare bëgg a bëree wala bëgg suñ làmb moo tax ñu ne tey nañ ñëw nit ñi pour ñàkku te yaakaar naa loolu am solo la bu ñàkkoo pare nag ah dinañ wax autorités yi na ne nit ñi ñàkk nañu pare nan la ñuy def pour ñu ubbi ñu suñu làmb su fekkee ubbi lu ñu làmb ji nag ah monde daal dinañ def nag li nga xam ne mooy seen devoir nag ak li nga xam ne mooy moo leen war ci réew mi foofu la gars yi toll foofu la ñuy waxtaanee di avancer léegi à part mercredi am na beneen rencontre boo xam ne war nañ ko defaat pour gën a avancer ci li nga xam ne moom la ñuy def pour làmb ubbeeku mais daal li ñu gën a soxal mooy ne nit ñi ñu ubbi làmb ji ci campagne de sensibilisation boobu wàllum ñaq bi léegi c'est obligatoire ku ñaq ñëw ci làmb ji wala da ngeen di ñaq ba pare soogoo neen ñaq nañ pour ñu mën leen ubbi làmb ji waaw li gars yi wax mooy ni ñu bëggee mooy képp kuy dugg ci làmb day fekk nga ñaq ba pare am carnet de vaccination bi mooy ne gis na ne kii ñaq na ba pare day mën a ñëw pour séance si làmb boo ñëwee da ngay daale sa carnet wane na ñàkku nga takk sa masque def gel pour dem loolu nag suñu waxtaanu bopp la ñun àggagul ci li nga xam ne mooy autorité yi mooy loolu ñu waxtaanee ak waa CNG nekk ci procédure boobu ne ni nit ñuy def rek tout le temps pour fexe lamb ubbeeku te nit ñuy def pour lamb ubbeeku nag dañuy xool li réew mi leen ci ànd ci ak ñoom mhm. loolu ngeen jàppagum nan ngeen nan ngeen nan ngeen fas yéene nekk a jot ci information bi ne kat ku bëgg lamb ji ubbi gars dañu war dem ñàkk ji yan solution. waaw xam nga tey euh, boo gisee fi réew mi toll foo nekk yaa ngi gis nit ñi ni ñuy wàññeekoo ku ne xam na ne sa bopp nit ñi daawuñu deewee noonu kon tey bu nit ñi deewee noonu y a quelque chose am na lu xew ba nit ñi di deewee comme doo comprendre tey loolu mel noonu soo amee ñun ñuy ay acteur de la lutte li ñu war a def mooy li état bi ne ñu ne ci jàppale état bi jàppale réew mi pour nit ñi vacciné wu mën na dem si yenn activité ndax mbas mi kenn xamul kañ lay jeex léegi nag leneen mooy saafara bi pour ñu vacciné wu ba pare jël suñu ay mesures barrières bu ñu vacciné woo ba pare dinañ xamal état bi ne ko nag lamb vacciné wu nañ def nañ ñu waa def yëpp li ñu pare mooy ñu ubbil ñu làmb nag pour ñu mën a dem ubbi làmb tamit du dañuy ubbi làmb stade yi pour fees dañuy ubbi làmb ci ay nombre de places yoo xamante nii promoteur lañ ci mën a gis seen bopp mbëri lañ ci mën a gis seen bopp te it askan wi la làmb dañ mën a di dund làmb comme événement yi fa a am ndax tey ku xam nga samedi ak dimanche événement yi ma war a am samedi ak dimanche bi di ñëw événement yi a am noonu ba mois d'août bi jeex te loolu yaakaar naa amul kon li ñu war a def mooy premier bi mooy mercredi incha allah à partir de huit heures ñu ngi lancé appel pour képp koo xam ne ni bëgg nga làmb wala nga nekk ci làmb ñu ngi lay pour nga ñëw vacciné soo vacciné pare nag nañ teg 5 yoo xam ne ni nañ fexe jotante ak autorité muy Matar Ba xool na lañuy def ba jotee njiitu réew mi ba nga xam te nañ mën a waxtaan ba ñu mën a ubbi làmb ji ñëpp ñëw di seetaan si yoo seen ay carte de vaccination ñëw ñu xam ne làmb yëpp vacciné woon na ñu ngi seetaan làmb comme niñ ko bëggee merci ko waaw am mbégte rek ci bi am mbégte tamit ci monde laal tey dajee pour waxtaane li nga xam ne mooy làmb waxtaan pour làmb jën kanam expérience wu mën a dajoo pour waxtaan kon yaakaar naa duñ mën a trouver benn solution moom ne nii dina avancé ñëpp wala dina avancé monde la lutte mbëri nañ ko jàppee noonu promoteurs yi amateurs ñëpp xam ne nañu fexe nit ñi vacciné wu dem seeraani lambo lambo yi mën a am te ku bëgg sa mbër bëre bëgg sa fayee ko war nga ko mën a ñaax pour nit ñi dem vacciné wu pour ñu mën a organiser lambo yi normal di ménagère Boy Niang mon père maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa fii. fu mu mujj. Euh, kontaan nañu d' abord ci rencontre bi nga xam ne def nañ ko composante lamb yëpp ñoo fi daje tey ji ak le CNG ñu waxtaan ci ñaari point sensibilisation ci affaire vaccination ak nan lañu mën a def ba reprise mën a amaat encore ci lamb nit ñi nag waxtaan nañu waxtaan wu yaatu li ko mën li ñu mën a tënk daal mooy. gis nañu d' abord vaccination bi c' est important parce que nit ñi dañoo war a vacciner wu pour que ëllëg suñuy déma redémarrer euh, làmb ji au moins kuy ñëw di dugg si làmb indaale sa carte de vaccination beneen bi mooy état actuellement dafa am devoir u subventionner les promoteurs ñi nga xam ne par exemple tey comme lu ko mel ne rente Dakar nga xam ni ci même jour bi la yëg ni annulé nañ te fekkoon ne dafa na dépense yi mu waroon def yëpp kooku ñu ñu ñu subventionné ko pour mu mun a tëggaat yeneen promoteurs yi nga xam ne aussi dafa am nañ seen programme te régularisé woon nañu di obligation la pour état mu subventionné leen pour que ñu continuer mais ñun suñu xalaatu bopp mooy état bu développé woon tey jii lu ma deux ou trois milliards rek situation yëpp dina décan décanté wu ci problème yi nga xam ni waa làmb am nañ ko li nga xam ne nag mooy feebar bi président moo ñu moom moo ñu jàngaloon ni ñun apprenez a vivre avec le virus nit ñi comprendre nañu ba koo gis mi ngi maskam koo gis mi ngi am gelam mi ngi raxasu distanciation yi mi ngi am kon loolu parce que bu ñu xoolee bi ñu tëjee làmb ji ak léegi est-ce que virus bi daf fay jóge nit ñaa ngi kon ne di di dund ak virus bi ñi war a dee moom même su amul woon feebar bi dañuy dee kon nañu comprendre loolu ñun sunu économie mi ngi mi ngi wàcc ndax situation yi nga xam ne noonu la nit ñi di vivre da xool programme yi nga xam ne suñu bàyyi woon par exemple le mois d'août le mois d'août ñu ñu ñu bëre combat yi ci ne kon nag ne benn problème du am kon nag ñun li nga xam ne loolu la ñuy waxtaanee daal mooy ñun duñu bus bousculer kenn duñu génn di sànni ay xeer duñu génn def benn manifestation mais am nañu confiance ci suñu état waxta wax ak ñoom ñoom ñu dimbali ñu parce que le milliere daal la lutte est fatigué. mon père ma lay sàcc kay kay kay sa combat doon jox diggante Tapha Tine le huit bi nii ba ngeen yëgee ne annulation lan ngeen yëg wala report bi. mais loolu lu méttee métti la xoolal mbër mi dépense yi ngay def pour yóbbu ko mu dem voyager ji entraîner mbër ay porteur de voix lañu ay support lañu ci dëkk réew mi tey Boy Niang su waree am combat bu toll ni bii mu am ni képp kuy mbokkam képp kuy xaritam képp koo xam ne da koy ñaanal yaa ngi xalaat lu mu la war a jox alors nga xam ne su bëri woon tey jii le huit nag ni fekkoon na am na ñu bëri ñu am ñoo amoon yaakaar ci moom mu ngi faj seen soxla tey munu il recommence à zéro te xamul kañ lay bëri jiwaat kon report boobu lu méttee métti la mais nag ñun le milieu de la lutte est fra très fragile loo def ñu ne c'est des violents nangam ak nangam c'est des barbares loolu moo tax li ñu li ñu dal li mu ñuy métti métti métti ñu ngi concentré wu ci suñu di xool yan moyen la ñuy def pour que ñu génn ci situation yi nit nekk nii en tout cas lu méttee métti la te président de la république ñun ci moom la ñu bokk yàgg lépp loo xamante ni ñu ngi koy demander pour le développement de la nation le milieu de la lutte mi ngi ciy dugal loxoom bu fekkee ne barki Demba Ndiaye ci Covid bi dañu ànd ak sunu ministre tutelle dem jël sunu li ñu am ànd ak moom dem yóbbul ko ministre de la santé pourtant bu ñuy séddale euh, euh, di di euh, milliards Covid ñun amuñu ci. artistes yi am nañ ñëpp am nañu mais ñun amuñ ci kon nag ñun aussi nañu sentir ni ñun suñuy ñuy pousse di ñu pousse ba ci mur bi fa muy mujj du neex te du ay menaces yu ñuy def mais ñun ay demandes rek la ñuy def. asalaamaaleykum mon père ginnaaw ba ma la nuyoo ma bàyyi la nga présenté wu. waaw man maa ngi tudd Seydina Alioune Sylla maa ngi tudd Seydina si la président école de lutte Thiaroye Ndigal nekk président commission organisation ARAS e. ARALSE c'est l'association des responsables des écoles et écuries de lutte du Sénégal voilà. ginnaaw ba ngeen amalee waxtaan ak CNG fan ngeen mujj. waaw fi ñu mujj mooy que nii gis nañ ni li ñu gisagul pour le moment comme solution ñu war koo dérouler comme plan d'action euh, mooy que d'abord mercredi dafa dañuy dérouler benn euh, dañuy dérouler benn journée de vaccination bu ñu defee journée de vaccination bi oo ci mbër yëpp ak écoles yi ak écuries yi bu ñu ñëwee ñu def vaccination boobu. respecter distance yi euh, ak lépp loo nga xamante ni daal aju na ci feebar bi ci mesure de sécurité pour le moment loolu la ñu jàppagul oote mbër yëpp teew euh, dirigeant yi teew ahlu làmb teew ñu def benn journée de vaccination mobilisation sociale ba nga xamante ni ñëpp dinañ xam ni làmb mi ko dugal na loxoom vraiment ci feebar bi ginnaaw feebar bi moom moo tax moo tax ñu téye làmb ji ñu essayer évacuer loolu le plus rapidement possible pour dellu siwaat ci suñu ay activité waaw loolu daal mooy li nga xamante ni moom la ñu jàpp ci biir moom mooy li nga xamante ni effectivement moom la ñu jàpp ci biir mooy que organiser benn journée benn journée de mobilisation def ay vaccination mbër yi ak képp koo xamante ni làmb soxal na la ak képp koo xamante ni di nga ñëw ci biir làmb ji vraiment ñu assuré wu ñu garanti ñu nga garanti ñu ni effectivement li ñu war a def yëpp def nga ko après ñu jéem a xool deuxième plan d' action bi nan la la ñuy def pour que lamb ji ubbi le plus rapidement possible parce que bul fàtte ni dafa am ay nit yu jël seen xaalis investir ko ci biir lamb ji te ñooñu déjà pare woon nañu ba 48 heures wala euh, presque sax le même jour ñu arrêté donc fu ñu toll ni ñoo ñëpp dañu taxaw xamuñu fu ñuy teg seen tànk maintenant nag comme que feebar bi moo tee lamb am ñun lépp bépp mesure bi nga xamante ni war nañ ko jël par rapport ak feebar bi ahlu làmb dinañ ko jël à partir des écuries ak écoles yi ba mu egsi ci kaw ba egsi ci amateurs yi bu boobaa nag suñu jaan wàcc ñu laaj nag aussi nag maintenant suñu warugar lan moo nu war def nañu ko ñu it li ñu am nan nu ko jox mooy lan mooy que ñu ubbiwaat làmb ji bàyyi journée yi nga xamante ni moo ci desoon ñoo ñu déroulé seen ay journée surtout ñi nga xamante ni fayoon nañu mbër yi def nañu lépp ba indi relikaay ba teg ko ci biir CNG bi xaas bi nekk fi toog fi di xaare ñooñu daal vraiment bëgg nañu lu mu gàtt gàtt gàtt ñu évacuer leen ñu dem te loolu war na toll ci une trentaine de journées. suñ ko mën a xayma bu ñu nee combat bu ko la woon le mhm. la 31. jeex un mois. Mhm. est-ce que vaccination suñ ko defee pare mën nañ jàpp ne làmb dina ubbiwaat. incha allah loolu daal la jàppagul fi ñu toll nii comme proposition euh, astafurlah comme solution que ni bu ñu defee loolu. semaine ba ca topp rek dinañu jéem a gis le ministre gis le président pour que dix jours après ñu daal di ubbiwaat làmb ji euh, journée yi nga xamante ne moo ñëw peut-être dina am dina am benn gap bu tuuti boo xamante ne peut-être gaboon deux journées trois journées lay doon ñu seet yooyu naka lañ koy incorporer ci biir ci biir programme bi loolu. CNG pare na pour jàppale promoteur yi nga xam ne ñoo kii. Euh, waaw en tout cas bu ñu dégloo président li mu jot a wax pare nañu pour jàppale leen mais financièrement je ne pense pas. je pense pas que ni financièrement pour le moment ñoom pare nañu pour def loolu pare nañu daal pour accompagner làmb ñu dem ubbiwaat ko ak àggale journée yi fi nekk mais ci wàllu finance bi ak promoteur yi nga xamante ni jotoon nañu dugal seen xaalis loolu moom amagun ci dara wax dëgg yàlla lu leer. message bi may lancé mooy que ni képp koo xamante ni ni yaa ngi yëngutu ci làmb muy mbër muy amateur muy ku mu mën a doon rek ñu xam ni lii ñëw ni dal ci suñu kaw euh, ndogalu yàlla la d'une part. Euh, loolu nag ndogalu yàlla nag jaam daf koy nangu maintenant loolu nag bu ñëwee li taxaw sës fi mooy lan mooy solution yi solution yi képp koo xamante ni yaa ngi ci biir làmb rek ci nga bokk ñu ànd ak discipline ànd ak yar xam ni mbir mu nekk dañ koy régler ak xel ak xalaat mais duñu ko régler ak doole xam nañ ni metti na def sa alal la nga bëggoon def defuloo ko war a bëre préparer say combat war a ñëw euh, mbir mi demee nii mais nañu ànd ak tekk ak tey may o nag mbër yëpp mbër yëpp surtout mbër yi supporters yi mercredi ñoom ñëpp ñu dem ci centre yi kenn ku ci nekk fa nga nekk nga dem fa nga ñakku ñu jox la sa carnet nga téye sa carnet booy ñëw ci làmb ji exigence la pour que képp kuy ñëw di seetaanate lamb tey jii dangay ngay andiwaale sa carnet de vaccination loolu daal mooy euh, appel bi nga xamante ni maa ngi koy lancé monde de la lutte na ñëpp dem ñakku ji yor seen carnet de vaccination ku ñëw ci stade bi du la téye nga wane sa carte wane sa carnet de vaccination kuy dem di vacciner jiw tamit aussi nga yóbbuwaale sa carte d'identité nationale parce que mooy permettre ñu ñu kii la. ma nuyu bàyyi la nga présenté wu. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu internautes yëpp donc man la Khalifa Ababacar Niang nekk secrétaire général ARELS association des responsables des écoles et écuries du de lutte du Sénégal nekk président écurie Tay Shinga également. li ngeen jël pour sensibiliser maanaam vacciner ngir làmb mën a ubbiwaat lan nga ko gisee yow. waaw en fait décision bi nga xam ni moo génn tey ci réunion bi nga xam ni CNG bi woote woon na ko mooy euh, ñu def une journée de sensibilisation sur ci vaccin bi parce que jàpp nañ ni feebar bi moo tax ñu ñu tere manifestation sportive yi feebar bi moo tax lamb tëj et comme loolu moo tax moo làmb tëj nag dañuy njëkk teg benn pas pour wane ni ñun ay personne responsables lañ ay nit ñoo xam ne au-delà de de tout Sénégal ak Sénégalais yi ñoo ñu yor te comme lii c'est des décisions la la yoo xam ni autorités yi ñoo ko jël pour euh, indi fi vaccin bi donc du ñu def lu dul euh, sensibiliser population bi sensibilité mone de la lutte pour que ñun ñëpp ñu ñëw vacciner wu pour mën a xeex ak feebar bi. ban message ngay yi nekk Sénégal. waaw écurie yi li leen di lancé mooy ñu mobiliser wu mobiliser wu ci euh, euh, sensibilisation bi nga xam ni CNG ak monde de la lutte jël nañ décision pour def ko muy mercredi ginnaaw suba bi képp koo xam ni jotagoo vacciné wala euh, koo xam ni vac vacciné goo nga ñëw def sa vaccination parce que vaccination boobu noonu moom mooy ñuy mën a permettre ñu am ay conditions yoo xam ne dinañ ci mën a ubbi làmb ji parce que ji làmb ji fi nii dafa tëj te duñ ko mën a ubbi tant feebar bi delluwul ginnaaw te feebar bi bokk na ci li koy delloo ginnaaw moo ñu ñàkku mais bokk na tamit ci li koy delloo ginnaaw moo ñu respecter les mesures barrières maanaam di di di di di raxasoo gel fu ñu toll di jël distance si suñu suñu communication di également sol suñuy masque donc su ko defee su ñu defee li nga xam ne moom moo la ñu war a def donc am nañ yaqin ni Euh, autorités yi dinañ ñu mën a dinañ mën a def ay propositions yoo xam ni dina leen mën a permettre ñoom ñu mën a ubbi làmb ji combat yi nga xam ne dafa amoon ay gàllankoor ñu mun lever gàllankoor yi nga xam ne moo ci nekk ba sur la base de propositions yi ñuy def soit mu doon ay huis clos wala huis clos parcelle en fonction de maladie feebar bi fi mu toll ñu mën a organiser làmb parce que tamit fi ñu toll nii àdduna mu ñu xëy rek taxawal ko taxawul toutes les activités sportives parce que làmb dafa nekk làmb nekkatul fo loo xam ni ay milliers de familles dañ ci dañ ci dañ ci dañ ci wékku nekkul foo xëy na ku nekkul ci biir làmb mun nga yaakaar ne làmb foo la te jàpp naa ni autorités yi am nañu conscience que ni làmb ñi nga xam ni ñoo ci nekk ak ñu ci yëngu yëpp ay personnes yu responsable la donc loolu lañuy def proposition boo xam ne moom la ñu am pour def ko donc di ñuy woo ñëpp pour ñu ñëw ci journée de sensibilisation sur la vaccination bi pour que ñëpp vacciné wu pour ñu mën a ubbi làmb ji. defe naa moom maa naan day Mbacke Diop du mën a ñaax trio bi kenn du yow borom wasaare di leen jaajëfale bu baax ba beneen yoon ak yeneen information làmb jaajëf